ak fit ak dem wax ak nit ñi nga xam ne ñoom la ñu war a waxal ñun loolu am nañ ko euh, li ñu jàng ci école yu mag yi ñun loolu lañu jàng ci école yu mag yi ñoom li ñu xam ñun loolu lañu xam fi ñuy dem ñoom ñun foofu la ñuy dem ñun tey soxlawuñu pour dem bu ñu bëggoon dem suba bàyyi dañuy dem du bàyyi bu ñu soxla woon dem Union européenne suba dinañu dem tax wax ak ñoom am nañ chance boobu am nañ possibilité boobu dem wax ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu war a waxal pour que lii nga xamante ne moom la ñuy mbëbët ñu mun ko taxawal donc pour répondre vraiment à ta question psychologiquement on est très bien préparé mais nag dañu nekk ci langue politique langue politique moom euh, euh, dañu ne euh, ku ku ku ëpp doole daal moom mooy gagné ñun nag duñu duñu duñu corrompre ñun du xaalis rek mooy tax ñu ñëw suba bu ñu gisee ñoo xamante ne. ñun lii nga xamante moom la ñuy defaan mën nañu ànd ak ñoom dañuy ànd ak ñoom bu dee nag ñoo xamante ne mënuñu ànd ak ñoom parce que ñoom li ñuy li ñuy li ñuy doxal ak ñun li ñuy doxal bokkul du ñu ànd ak ñoom parce que man bëgguma dellusiwaat fii Joal nit ñi naan ma ah xool leen waa ji waa ji de ñëw na fii wax a wax a wax a wax ba gars fal ko mu dem bàyyi ñu fi man bugguma loolu bëgguma loolu de parce que ñaanuma ko yàlla yàlla na yéex mais sama yaay bu fi nekkatul wala sàpp sama pap bu fi nekkatul ku ci génn àdduna fii laa lañ fii lañ lay suul man ni di wax ak ñom euh di wax ak yéen bu euh, bu ma fi yalla euh, bu ma fi bu ma bu ma yalla jëloon fi Joal laa bëggoon ñu suul ma yaa ngi dégg kon dama japp ne ñun amuñu fenen lu sunu sunu sunu gox man personnellement j'ai fait 17 ans en Europe def na fukki at ak juróom-ñaar euh, France ak Suisse genn wàll gi yëpp maa ngi ko def Suisse mënoon naa toog foofu man ak samay njaboot sant yàlla di samay pat euh, euh, euh, régler problème de temps en temps nga fi def comme les gars def ci bu rafet après mais lolu muy dara dara parce que lolu boko nous yow da nga yakane nit ñi ngi lay ñëw fekk nit ñi lay saboter xamul xamul affaire yi population bi

tay lu ëpp 100 personnes ñu ngi liggéey ci biir euh, ci biir ci biir euh, garage bi garage bi bu nawet jotaan ñepp gis nañ ñu mu doon mel da doon da doon mu no fa def 5 minutes yo xamante do fat sa bakkan mais loolu yalla moo ñu ko japp moo ñu ci moo ñu ci jàppale ma japp ma jàpp ne dama ci sax ma am ci ay xarit géey bi géey sama xarit la euh tay bo gisé tay mu ñëw parce que loolu moo ñu boole soxnaam di ci yëngatu hein ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante yalla li nga xamante mom lañ fi indi moom moo tax ma jàpp ne nag liggéey ba warul yem foofu tey gëm naa ne tey actuellement nii mën nañu indi lu ëpp loolu tey mais nag pour ñu am ko il faut nga am un cadre politique nag euh, moom moo la mën a moo la mën a jox loolu. parce que tamit euh, bu dee da nga toog nii rek ne affaire yi doxul affaire yi doxul te doo def dara mais dara du dox mais bu dee da nga dem gars yi tànkale yi nga daw taxaw ne leen ñun Joal lii la ñu bëgg di ngeen ñu ko war a indil gars yi dañ ñu koy indil loolu moo tax ñu sanc ñu sanc parti bi. te nag duñu teel kenn duñu neex a tu vois lii ñuy def nii man président Macky Sall ko il est au courant parce que bi ñuy def suñu parti dañu def reconnaissance de parti depuis 2020 ñu ngi dox tu vois le préfet euh, bind même euh, Antoine Diom, l'actuel ministre de l'intérieur bind nañ ko pour ne ko ñun dañuy taxawal parti parti bi fille euh, fii Joal

mais wax ci waaw waaw te financement yi ci mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. de financement euh, man euh, ma ngay remercier sa question bi mais di romb ñu ne kii góor jigéen la wala kii day liggéeyal góor jigéen yi loolu financement jaru ko financement jaru ko de parce que dama yor soxna yor ay doom am ay euh, am ay nawle euh, euh, jàngee jàngee Europe nag jàngi Europe c'est pas pour autant que dangay ngay seen cause yaa ngi dégg. wax naa ko léegi nii man dama am ay xarit yoo xamante ne dañu bëgg am ñaari jabar ñetti jabar ñeenti jabar mais loolu amuloo droit def ko France tey nii France boo fa nekkoon ñu xam ne yow danga am ñaari jabar dañ lay dañ lay dañ lay dañ ci dañ lay dàq état bi du la ko jox donc financement lu mu neex neex neex neex neex neex neex. dignité moo ko gën dignité moom moo ko gën parce que ñooñu gisuñu leen te ñu ngi lekk ñu ngi naan man yàlla def na ren am naa cinquante ans maa ngi lekk maa ngi naan maa ngi am fu mu tëdd loolu rek laa soxla soxla wu ma leneen. xam nga sa position ak bu réew yow en tant que loolu xam naa dara jarul loolu. ah dé mhm. la tant

ci borom ñaari tur yi am na ku ci bokk ci biir parti bi dañ lay teg fële ñun ànduñu ak loolu man kooku ànduma ci parce que kooku man dama am ay doom ay doom yu góor ak ay doom yu jigéen mais man bugguma suba sama doom bu góor ñoo ne ma ah papa man de euh, sëy naa ma ne ko ana sa jëkkër ana sa jabar mu ne ma mu ngi nii ñoo indil ma benn waxamaane xam nga ne loolu neexul yaa ngi dégg donc c'est de responsabilité ma ñëw taxaw ne lii ànduñ ci c'est vrai que nag ñoom am nañu ay financement c'est vrai que nag parfois dañuy jéem infiltrer parti yi mais mën naa waat fii ne ñun loolu bokkul ci li nga xamantene dinañ ko défendre té bës bu bës bo déggee ne défendre nañ ko boobu xamal né man nekkuma ci nekatuma ci bop parti bi mais tant que maa ngi dund bu soowee yalla borom ñaari tur yi du bok ci ñun jamais de la vie jamais jamais de la vie parce que yàlla dafa def man euh dama nekk euh, sama yaay euh, jullit la sama papa nekk catholique moom ma bok ci ñaar ñi

en tout cas nous koy depuis 2014 parce que le premier contrat bi été signé ci pétrole 2014 dañ ko signé Il ngi a une solution bi nga avons proposée, ñun qu'il il existe actuellement lors par exemple de la COP 26 COP 26 chaque année nous vote 5 milliards de dollars pour que les gens qui ne ñoom perturber seen écosystème par exemple nous ñëw fekk que ci seen gis na fii par exemple pétrole la fa am ñu xam ne bu ñu fa sampee seen seen i teeni pétrole euh, seen jën yi dañuy daw ñu indil leen financement ñun financement yooyu dañ ko bëgg fii ñun loolu mën nañ ko am parce que tubaab bi nga xamante ne ñoom ñooy dem di ko utal seen seen dëkk yi ñun liñ ko li ñu def ñun mën nañ ko def ñun mën nañu dem ay ut ay projet monter ay financement dem taxaw ak ñoom ne leen ñun lii ngeen ñu indil fii c'est vrai euh, euh, lu ñu ngi koy rafetlu mais ñun 10 lañ ci am

c'est mal organisé c'est mal géré loolu il faut de il faut que tey tey nii ñu dem lijjanti loolu ba xam parce que am finir fi ñoo xamante ne ay cité la ñu cité laa wax. ay cité ay cité tour bugguma bugguma wax tour parce que tamit on parle devant la presse euh, euh nationale et donc ça peut être divisé sur le plan international donc ñun solution bi ñuy bu ñuy préconisée. Moi nous ñuy préconiser mooy ñu am benn commission boo xamante ne liggéeyam euh, càmbar li nga xamantene mom moy problème foncier bi nga xamantene mom lañu am non seulement au niveau de joal Fadiou mais au niveau du Sénégal parce que le problème de foncier c'est un vrai problème tey actuellement ni borom dolé ñom ñoo ñew ŋànk suñu suñu suñu suñu suñu suñu terre yi ba paré fas ko jox sen sen bokk yi amna ñoo xamante amati problème suuf be cent ans

nous euh, euh, mujjee jóge filles commencé c'est ko ça il faut reconnaître ça mais parce que fille ay France nous former une qui pisciculture mais dama yaakaar dafa ces doy euh, beau presque yu la des par exemple beau sol presque amatu sol ci par exemple saumon saumon amatul ci presque ci géej gi boo xoolee tey saumon da ngay gis ay gox yo xamantene ay hectare ak ay hectare ci yo rek lañuy lañuy lañuy lañuy ñuy yëngu donc lolu aussi bokku nañ ci projet yi nga xamantene ñun dañ ko wara impulser te dinañ ko impulser de manière à ce que mu ñëw fi parce que bo xolé fi Kalamar ci ginnaaw amna ay possibilités yo xamantene buñ ko encadré mais kooku mën na euh, mën na indi liggéey man mom lay woyé les emplois verts genre emploi yooyu buñ ko indé fi buñu démé demee amul

sur ay surface yu tuuti ngay am mom moy li ma doon wax léegi ni rek manam y a plus assez de terre pour que les gens puissent cultiver mais ñun projet yi nga xamantene mom lañuy défendre mom moy projet yo xamantene da fay am euh, une connotation avec avec la terre kopp ko wax mbirum écologie wax mbirum souf parce que protéger suñu biodiversité protéger suñu souf lolu bokk na ci li tax bi nga xamantene ñu créer parti écologique sénégalais muy muy Joal mais aussi muy tout le Sénégal parce que même problème yooyu lañu am parce que tay actuellement ni euh, euh euh li nga xamantene mom lañuy la am na lu bari lo xamantene Europe lay jógee mais amna lo xamantene tamit fi ci suñu suñu suñu suñu suuf yi la jógee donc ñu war ko continuer diko euh diko diko di impulser pour mu continuer di dox voilà. mais nit su la defalee teraanga ngay nit dangaa war a toog wax ko moom su ma suñu joxee añ suñu guddee reer dañ koy gën ndax moom dafa nekk Joal bëgg Joal bëgg Fane ndax yaa ngi fa dëkk Joal ak bëgg Fane mu yërëm njaboot trop moom comprendre bu ñu njaboot yërëm ko bëgg di def ay projet ci suuf di ko def te yàlla tax di dimbali ay nit te yàlla tax man damay gis ko sonn mu ñëw ci man ne ko diw dafa sonn mu ne ma ndax gëm nga yàlla bu ko xam de gëm nga yàlla ma ne ko waaw mu ne ma am na ma dox moom la ñuy toog ma dem na ko yow nuyu ko ba pare na ko jubal la mu ne ma kuy kooku ma dem sama yoon na ko danga koo jox kuy def loolu te yàlla tax te xamoo ki nga koy defal kan la su la liggéey ni naa defal dal ñu gudd man damaa jabul sa suma feet jonkoon suñu ba ma xee ma daanu mu jël ma teg ma garage may bale nettoyé mu ne ma danga ci boole sama kër dafa ñaari san sool bi dama ko jàppale ndax maa xam damaa jaboon su ma toogee sama institution doom taal mu xam maa def nii su ma ko waxee du ma woo man du ma ko def sama dama koy jox dama koy eskay. kii lu mu dig Joal Fadiouth dama koy gën da nga ne ndax gay na ne Ndiaye biir man biir la laa mais biir laa wax. ndax nit bu fekkee da ngaa bëgg sa dëkk. man xam nga lan damaa bëgg sama yaay ba ku wax benn baat nga sama yaay ba Serigne Babacar si dama leen ral. dama dafa bëgg yaayam bëgg Joal Fadiouth dina jiitaloo xam nga moom lu ko ñor jigéenu Joal Fadiouth moom damaa fier ci moom dafa bëgg a Fadiouth xam nga lu ma bañ jagoor ju toog dëpp ci nam mu xool la sa bët xonq moom loolu la moom lu mu wax ci Joal Fadiouth da koy def ci kattanu yàlla nit nag da ngay mébét rek mais yàlla mooy def ñu lay ñaanal yàlla gudd fa ak wér gu yaram ndax man tukkuloo laa ngay séeréer ma la ñaanal da lay daal ci barke Serigne Babacar Sy yow loolu da nga koy jox ndax yow man soo ñu diggee ni da nga koy gëm ndax da nga koo wan barke yonent bi yow loo yow loo yóbbu nag yàlla da ko def ci barke yonent bi ndax da ngaa baax yërëm jàlloo moo tax ma bëgg la lii dama o ko seere sëñ man soo defalee nit su la defalee dara nga buux say lex dama koy baadoo la dama koy wax ndax yaa ndax yow jërëjëf jërëjëf merci merci beaucoup jërëjëf jërëjëf jërëjëf ndeysaan jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup jërëjëf jërëjë aywa bàyyi ah ah. lancement parti Mhm. Mhm. waaw merci ci sa question bi mais euh, actuellement ñun fii ñu toll nii euh, ànduñoo kenn Et pour le moment nous sommes ñu ànd ak kenn ci législative Euh, c'est vrai que dañ ko def en pleine élection législative mais nous dañu yor seen agenda ñun ñu yor suñu agenda ñun nous ñu ñor moom mooy fi nga agenda. ne mooy suñuy gox euh, ñoom ñii bëgg nañ dem nekk député à l'Assemblée nationale mais ñun dama jàpp ne actuellement nii euh, pareeguñu pour dem législative euh, parce que d'abord euh, parti bi depuis 2020 ñu ngi ciy ñu ciy dox lu nekk jéem nañ ko pour ñu jox ñu parti jox ñu parti bi mais mais à chaque fois dañu doon bloqué loolu bokk na ci ñi nga xamante ne moom moo ñu gën a retardé par exemple il y a un an comme niñ ko fas yéene woon bu doon amoon nañ suñu reconnaissance bu am suñu récépissé bu soobee yalla doon nañ doon nañ bok ci affaire yi mais yalla dafa dogal ne euh, finalement euh, euh, léegi nii la ñuy soog di mën a pare pour mun préparer yeneen échéance ñun fu mu ne nii li ñu li ñu soxal xam nga mooy lan parce que man dama jàpp ne dem assemblée nationale c'est vrai c'est bien mais intéressé wu ma bu dee da ngay dem nekk député nekk ci foofu di nelaw wala mënuloo lijjanti benn xaalis wala mënuloo mënuloo fa def dara wala bu ñu nee Macky Sall nga yëkkati sa loxo man loolu intéressé wu ma xam nga man lan mom intéressé lu concret manam nga dem indi gaay gis man dama japp ne politique fofu la léegi té actuellement kenn mënatul nax kenn tey nii da ngay def gaay gis tu vois c'était beaucoup plus simple nga ñew né da nga bëgg a bëgg def dara mais bo fi deful dara gaay dañuy xam ne def lo fi dara donc dama japp ne actuellement ni euh ñom dañuy yor sen agenda ñun dañuy yor seen agenda mais nak comme je l'ai dit en 2024 bu ci yalla andé bu ñu gisee ko xamante ne mën nañu liggéey ak mom on ira avec mais aussi il faut que respecter les nga xamante valeurs il faut que aussi population yi nga qui ne ñoom fi nekkal muy qui nekk ci par exemple dañoo dañoo euh, je le dis il faut ñu jël en considération li nga Nous parce que actuellement nous ñi ñi xam nga ñi ñan nous nekk ci bureau yi nous Nous jox yi Nous voyager

ah léegi-léeg ñuy naan parti politique yi dafa bëri mais dama gëm ne euh, tey ñun lii nga xamante ne moom la ñu am di ko jooy ñun buñ ko buñ ko jooyul kenn duñu ko jooyloo Sénégal euh, Joal tey actuellement fii ñu nekk nii Joal waroon na mun a dépasser lii parce que dëkk bi nga xamante ne Senghor fii la juddoo nekk suñu premier président de la République du Sénégal tey boo jugee Joal da ngay rus vraiment da ngay te loolu problème na ma jàpp ne euh, li nga xamante ne waroon nañ ko def

quarante cinq navires yoo xamante ne ay navires tubaab lañu dañuy ñëw fii di napp ci suñu ci suñu géej gi loolu moo tax bi actuellement nii suñu géej gi amatul dara loolu moo tax bi actuellement tey nii euh, ku ci bugg a dem euh, bëgg a am jën boo foog nga dem ba Mauritanie barko dem boo njaay ngeen dégg ne euh, Guinée Bissau am na fa ay ay ay kii ñu fa jàpp loolu du yoon ñun mënuñu am lii yëpp ba pare di dem ba Guinée Bissau te léegi-léegi sax yow nga dem bi naan Guinée Bissau def fa une semaine boo dellu suwaatee deux cent mille francs di nga ko di ko lakk ci gains boo dellu suwaatee am sax ben jën ma japp ne nak ñun suñu rôle la tay ñu taxaw défendre loolu ñu né d'accord actuellement ni indil ngeen ñu indil ngeen ñu pétrole mais pétrole bobu bu ñëwee ñun nu ñuy def parce que suñu géej gi actuellement ni ba ñëw sampalee ay teenu pétrole jën bu ñu dawee bu boobaa lan nga ñuy jox lo xamante mom moy solution pour ñu continuer di dund man nak dama japp ne ñun

ñom ñoo nek ci ministère ministère écologie mom ministère yi gëna am ma japp ñun actuellement buñu yalla japp né en 2024 dinañ dem euh, samp suñu ndëm bu ci andé Nous euh, bu aussi yalla andé né yàlla ànd né mënu ñoo demal suñu bop bu bo dinañ xol ñi nga xamanté de mën nañu ak ñu ak dem taxaw ñoo défendre suñu côté ñoo hé Joël ñu kat li ak li ak

dañuy créer lu bees te dama ànd ak ay nit mënuma jékki-jékki ni rek ñu commencé mbir mi judoogul nga commencé di ut koy àndal du noonu lay demee dañuy toog suñu biir ñu vraiment aussi lan lan parce que euh, euh, da ngay si seen ginnaaw di taw loolu dafa dafa nekkul ànd bu neex man yàlla dafa def euh, politique France def politique Suisse def politique Sénégal

une politique bu baisse la politique bu jeune 4 heures du matin bu la di ah man ma nek ci ci nga ko parce que nag vous avez population yi légui ni kenn mënatul leen nax tay ni tay fu mu ne ak internet bi kenn parce que lo que wax tay tay vous bala ngay vous. nit ñi vaar nañ dem ci internet bu xol ba xam ndax li ngay wax du budget yi xam nañ ñaata la li dugg ci ci

bokkul bu boobaa nag dañuy am déception man nag dama jàpp ne ndaw yu ñu doon suñu génération bii nga xamante ne ñoo ñoo fi nekk ñun ñoo war a dem defendre loolu pour que yaakaar bi nga xamante ne am nañ ko Joal ñu yaakaar boobu mën a continuer suñu yaay yi fii la ñuy yeewoo chaque jour te fii rek lañu ñu am amuñu feneen léegi nag bu dee nag lu ne lu ñu am tubaab bi dañ koy jël yóbbu ko ak suñu politicien fii la toog di jooy